jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97 point 5 euh, seen émission pencum réew mi ñu dellu am mbégte dellu si si ak yéen tey ji si euh, samedi ji ñetti fan ci weeru septembre atum 2022 ngeen di si ànd ak sek Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey seen émission pencum réew mi dellu am mbégte daa di dalal Samba Tall Sarr mu nekk expert minier pétrolier maanaam koo xam ne xelam màcc na jëm ci wàllum pétrole ak wàllum gaz waaye tamit mu nekk assistant ingénieur euh, mu nekk technicien ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum wàllum pont wàllum euh, société tali lépp lu jëm ci infrastructure euh, ci wàllu woowu moom la ñu fas yéene waxtaanal waaye tamit bu weesoo loolu nga xamante ni tey si la spécialisé wu homme politique la bokk ci parti bii nga xam ne mooy awale awale nag buñ ko waxee xel yi dem ci ki nga xam ne moo ko jiite jamono jii di docteur Abdourahmane Diouf Samba Tall Sarr moom nag la ñu daal di euh, invité tey euh, Samba Tall Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di ñaan yàlla kàddu yi fekk la ci jàmm. sunu borom sunu borom mii borom jàmm di borom sutura yàlla na ko defal bépp sénégalais ak sénégalaise bi nekk ci biir réew mi ak bi ndekk bitim réew. di ñaan yàlla waxtaan wi ñu tàmbalee ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin Samba Tall Sarr sànq ci présentation bi nee naa expert nga expert minier nga expert euh, pétrolier nga euh, technicien nga ci lu jëm ci wàllum pont wàllum wàllum tali ndax am na leneen loo ci mën a mën a yokk ci présentation bi waaw li ñu ci mën a wax ci gàtt rek mooy que ni Samba Tall Sarr benn ndongo daara la bu nekk consultant minier pétrolier et gazier nekk foreur aussi maanaam mbiru li nga xamante ni moom mooy li gas suuf loo ndox waaye damay xeltu ci li nga xamante ni dañuy machines yi gas ci wàllu euh, suuf si pour wàllu mine loolu mooy foreur en non onshore bu weesoo loolu aussi technicien la ci wàllu pont ak wàllu defar tali bu loolu yépp jàllee ma nekk tamit délégué national sargé des ressources minérales lépp loo xamante ni mbirum ressource la ci partie bii di awale bi nga xamante ni le docteur Abdourahmane Diouf moom moo ko jiite nekk responsable politique aussi fële ci Ngaye Mekhe dans le département de Tivaouane région bu Thiès. jërëjëf euh, Samba Tall euh, Sarr li nga xam ne nag moom la ñu fas yéene waxtaanee. Euh, dina bokk ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ressource naturale ci Sénégal wàllum pétrole ak wàllum gaz ndax euh, wax ji bari na ci fan yi dégg ngeen président Macky def na ci ab sorti lu may loolee tamit li nga xamante ni moo jëm ci euh, code des marché publique dafa am ak coppar ñi goo xam ne président Macky def na ko jaarale ko ci décret am ñu mu teggil procédure yi nga xam ne moom la képp ku nekk ci lim war a jaar ci lu aju ci wàllu marché public te ñu teggil ko ay kër fii ci Sénégal ñuy si mel ni SAR Sénélec ak Petrosen danañu si daal di ñëw ci biir waxtaan wi lan mooy njariñul euh, décret boobu ñu soppar ñi waaye tamit dinañu wax ci lu jëm ci li nga xam ne mooy euh, élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn ak euh, coalition Aar Sénégal ak euh, ëllëgu assemblée national ak njëgu yokk yi inondation yi ak lu soxal wàllum tali yeeg pont yi ndax technicien la ci lu jëm ci wàllu woowu laaj bu njëkk bi sàmba Tall Sarr yow expert minier pétrolier consultant nga ci lu jëm ci wàllu woowu xam-xam boobu fan nga ko amee fan nga ko jàngee maanaam. maanaam man ab sénégalais laa juddoo ngaay mexe jàngee ngaay ba génn ngaay ñëw ndakaaru continuer fee jàng yàlla dimbali ma may subir ay formation ba bi ma njëkkee mooy formation ci wàllu mine ak carrière ci lama yàlla dimbalee ma ci nekk ci ba jot ci samay lijaasa jot ci samay diplôme depuis 1991 yàlla dimbali may it ba tey maa ngi ci activité yooyu nga xamante ni moom mooy wàllu mine kooku muy benn beneen bi ñëw inscrire ci benn institut pétrole du gaz boo xamante ne ma nga nekk bitim réew di ci jàng wàllu woo xamante ni wàllum pétrole la bi ñu pare aussi ma am ci samay sax loolu moom moo tax tey jii lépp loo xamante ni dañ koy wax sur la cartographie minière pétrolière et gazière yàlla dimbali ma it ba teg ci sama xel mi ak ci sama loxo bi lépp loo xam ne cartographie minière pétrolière la ci biir réew mi ma boole kook sama xam-xam war cee mën di wax ulla loo xamante ni su ma ko waxee dina ñoŋ ba nga xamante ni kenn du ci mën a teg leneen loo xamante ni day weesu li ma ci wax. loolu daal mais bi nga koy jàng boobu waxi pétrole ak waxu gaz ci Sénégal boobu melut nii ay 91 boobu lu yàgg la lu nekkoon jubluwaayu branche boobu nga suivre ko. dañu déggantewul dama ne la ci sama njëlbeen quatre vingt onze gëstu laa nekkoon ci wàllu formation wàllu mine ak carrière mine ak carrière botul six ans ou bi ma duggee di def formation ci institut boobu nga xamante ni moom mooy gëstu ci wàllu pétrole ak gaz ndax xam naa ni avenir ni xel moom loolu rek lay jariñ avenir léegi léegi ak carrière boobu quatre lu nekkoon jubluwaay bi. maanaam lan moo sababoon branche yu bari nekk fi nga suivre miin ak carrière. dama xam ne rek àdduna tey yàlla ñun ci Sénégal en offshore comme en onshore ni ma koy waxee ci géej gi comme jéeri ji ñëpp xam nañ ni Sénégal am nañ loo xam ne yàlla dencal nañu ko sunu biir suuf sunu biir suuf nag loolu mooy wàllu miin comme du moment où loolu am na te loolu dafa yàgg nekk sama mbébét. te wax dëgg yàlla fi ma jaar yëpp wax dëgg yàlla sama commencement sama wàllu liggéey ci ba may doorit ci wàllu min la kon su ma ci gëstuwul cela veut dire que ni man bàyyi naa loo xam ne dama ci war a gëstu tey jii loolu yàlla def na ni moom mooy avenir u Sénégal ndax tey Sénégal kenn mënu fee wax lenn bàyyi fi lii nga xamante ni moom mooy miin parce que tey am na lu tollook ñaar fukki ressource ak yu teg ci wàllu mine ci biir réew mii nga xam ni moom la ñuy wax Sénégal kon ku yóbboo li ñuy wax les séries scientifiques mën cee digal sa doom mu dugg ci séries yi surtout sur le ak géologie dama yaakaar ne avenir Sénégal tey foofu la. waa euh, euh, Samba Tall Sarr est-ce que ëllëgu Sénégal ci ressources naturelles yi rek si lañ war a mën a sukkandiku pour Sénégal ñoŋ ëllëg. en tout cas li ma ci mën a wax daal mooy que ni am na ci pàcc bu am solo. mën na nekk nag impôt comme ni koy waxee mën na nekk agriculture mën na nekk waaye daal jàpp naa ni pays industrialisé yépp matière première moom mooy luy jóge ci biir géej wala ci lu jóge ci biir. suuf loolu nag bu fekkee ne tey Sénégal am na ci lu tolloog ñaar fukk ba pare nag réew yi amuñu lu ñu fiy wax génn ci wàllu développement wàllu mine wàllu pétrole wàllu gaz wàllu fer wàllu zircon wallu phosphate loolu boo ko ci dara dootul des ci réew mi nit ku nekk nag na ma ko waxee barki démb rek langa am moom ngay jox sa soxna mu dem marché te potentiel bii tey jii mënuñu koo yor ñu xam ne le Sénégal est potentiellement riche te duñ ci gëstu duñ ci jàng pour war a mën a yóbbu sa beau ki sa noom nomme le Sénégal dans de lendemains meilleurs. mais est-ce que Sénégal pays pétrolier la wala gazier. Le Sénégal, on peut dire aujourd'hui que c'est un pays gazier yi c'est un pays pétrolier. ki nga xamante ne booy président de la République bu Sénégal muy le président Macky Sall c'est un ingénieur géologue xam na la cartographie minière pétrolière et gazeur du Sénégal comme ñun ñii niñ ko xamee gëstu ci jàng ko comme ni mu ko jànge beneen bi kon tey jii bu fekkee ne dañuy wax ay milliards milliards de mètres cubes de gaz ci réew mu mel ni Sénégal di wax ay milliards de Euh, baril de pétrole dans ce même pays, cela veut dire que ni on est parti pour être un pays pétrolier, un pays gazier. moo tax ñu ne le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier d'autant plus que dañuy def ay sondages confirmés confirmer approuver que lii am na fi tey jii ci potentiel de gaz et de potentiel ci li nga xamante ni moom mooy pétrole ak fer ak li nga xam moom mooy zircon ak yëpp yi nga xam ne moom laa lay limal kon yi yëpp tey jii bu fekkee am na tey jii mu am ay société côté en bourse lu mel ni ay Cosmos lu mel ni ay BP gis nañ fi ay ex dégg nañ fi ay Exxon Mobil gis nañ fi ñoom ñëpp gis nañ leen ñoom ñëpp approuvé nañu maintenant le Sénégal Caerne Énergie bi ñu defee seen i sondage de précision ci biir géej gi xam nañ li maintenant le Sénégal est potentiellement riche en hydrocarbures. mais euh, Samba Tall tey euh, ressources naturelles yi nga xam ne moom la Sénégal am yan la si Sénégal commencé gu na jëfandikoo ndax lu mel ni petrole euh, ak gaz boo déggee wax ji day mel ni commencé nañ koo manqué ci réew mi wala commencé nañ ko manqué. li ma la mën a wax ci gàttal te loo xamante ni wax dëgg yàlla modestie à part mooy daal. lenn lañ ci tàmbalee gula exploité ci wàllu pétrole ak gaz muy bloc bi nga xam ne moom moo nekk blocu Ngajaga foofu en onshore la maanaam ci jéeri ji à part gaz boobu amul beneen gaz bu génn feneen ci Sénégal sur l'ensemble de vingt neuf blocs qui son dans ce pays damay fàttali rek ni réewum Sénégal am na vingt neuf blocs de pétrole vingt neuf blocs de pétrole yooyu kenn exploité gu ci benn à bi bii nga xamante ni moom moo nekk fii tey jii ci Ngajaga kon pétrole dara génnagul Sénégal. pétrole walaat pétrole litre wala <laughs> bëri génnagul Sénégal Sénégal tàmbaleegul a exploité pétrole am allah allahu rabbi jàpp nañ ni décembre deux mille vingt ci la premier baril yi war a daanu ci Sénégal wane ni ñu ngi exploité sunu pétrole vingt trois ci la ñu war a tàmbalee exploité sunu gaz bi nga xamante ni moom moo nekk sunu digganteeg Mauritanie kon 23 ci la ñuy tàmbali exploité sur l' ensemble des 29 blocs à part blogu Ngadiaga ñaari bloc yii kese la ñuy exploité dans ce pays. léegi léegi bloc pétro yi ngay wax nii. Mhm. Euh, yow xam nga vingt 29 yooyu fan la nekk ci Sénégal gi yëpp. vingt neuf yëpp mën nañ koo xam mën nañ ko xayma nañ ko xam nañ ko xam nañu décret yi tey jii jàpp nañ ni lii nga xamante ni tey jii moom mooy euh, li ma la wax léegi vingt neuf blog yi am na treize en offshore neuf en onshore ak euh, euh, sept en offshore neuf en onshore et en ultra mu def vingt neuf blog. Mm-hmm. waa léegi waa léegi blog yooyu noonu damay dégg ñu naan ay danañ si ubbi enquête parlementaire ndax dafa ay ay blog yoo xam ne dañ ko jël euh, jox ko ñi nga xam ne ñooy waa Total lu ci mel ni mhm. blog bi may dégg blog bi nekk Rufisque waaw xam nga mbiru blog yi damay jégoo rek tàmbalee tuuti ci li nga xamante ni moom mooy blog yi wax naa ko léegi dafa am ñaari blog yoo xamante ni moom la ñu joxe pour exploitation benn bi mooy sunu diggante ak Mauritanie nga xamante ni moo ngi bokk ci blocu Saint-Louis offshore profond superficie yi toll ci neuf mille quatre cent soixante trois kilomètres mooy bu indiwoon woon coow lu sunu diggante ak Aliou Sall ak ñoom Frank Timis boobu moom mooy fi ñuy génnee gaz bi beneen bi muy Sangomar offshore profond superficie yi toll ci cinq mille huit cent soixante trois kilomètres carrés benn bi Rufisque offshore superficie toll ci quatre mille quatre cent quarante neuf kilomètres carrés beneen bi Sangomar offshore superficie yi toll ci quatre mille six cent soixante seize boo ko mu ne quatorze mille neuf cent quatre vingt et un kilomètres carrés foofu la ñuy exploiter blogu pétrole bi nga xamante ni moom mooy Sangomar beneen bi ñuy wax mooy Ultradup Ultradup Macky Sall président de la République moom moo ko joxe par degré présidentiel neuf cent quatre vingt cinq mai deux mille dix sept kon jàpp nañ ni boobu nga xam ne moom lañ jox total nga xam ni superficie yi mu ngi toll ci soixante cinq mille deux cent quarante huit kilomètres carrés moom la ñuy wax ultra dupe boobu ça n'a rien à agrifis ak Rufisque offshore profond bi ngay wax nga xam ne superficie mu ngi toll ci dix mille trois cent quarante huit kilomètres carrés nga xam ni boobu it total la ñu ko jox loolu moom mooy li nga xamante ni tey indi na xëy na coow total bi nga xamante ni moom lañ jox. lu toll mais mais ni leen ko joxee mais ni leen ko joxee est-ce que jàppoo ne ak ndëngate am na ci. waaw xam nga ndëngate bu fekkee ni ñun tey dañu nekk dans l'opposition tey jii yow ci sa bërëb boobu nga nekk ak man ci sama bërëb bi ma nekk am nga dossier yoo xam ne yoruloo ko man am na dossier yoo xam ne yoruma ko mais jàpp naa daal ni lépp contrat boo xamante ni dañ ko war a joxe dafa am assemblée nationale loo xam ne dañ koo tënk ñu am code pétrolier am code gazier ñu ne nii lañu koy joxe nañu koy joxe bu jaaree yoon xam nañu bu jaarul yoon xam nañu mais daal jàpp nañ ne lii nga xamante ni moom mooy contrat d'exploration mooy dañ laa jox pour nga jeex bu fekkee ni tey jeex nga ñoom ci seen kaddu nee nañu jox nañu total total nee na jeex na gisul dara mais ñun amul lu ñuy confirmer ni évidemment que ni total recherché na gisul dara parce que tey nous n'avons pas accès à ces documents mais jàpp nañ waa mais Samba Tall Sarr tey euh, wàllum pétrole bii ak wàllum gaz bii est-ce que li ci Sénégal di bénéficier wu euh, gënut a néew ka li ci ñi koy exploité di jëfandikoo maanaam ñi nga xam ne ñoom la ko Sénégal jox pour ñu exploité ko est-ce que ëppale wuñ ci Sénégal ndax ñun dafa mel ni turu pétrole ak turu gaz rek euh, la waaye. comme bis waaw dama la ciy tënkal tuuti dañu am modèle de contrat ñun bu ñu signé ñun. mais balaa modèle de contrat bi nga xam moom la ñu signé dañuy nangu tey ni Sénégal moom moo tëgg kotam tudd ko cote attractif cote attractif pour nit ñi ñëw investisseurs yi ñëw tey jii jàpp nañ ni nous avions un cote attractif cote boobu nga xam ni jàpp nañu pour nit ñi ñëw la dix pour cent la ci Sénégal am. mais est bu baax la. tey xam nga cote na mais est bu baax la aussi. waaw foofu laa la jëmal léegi ñun dix pour cent yooyu nga xam ne moom lañ ci am. ñii nga xam ne ñoom lañ signé contrat yi code boobu la parce que loolu la ñuy wax modèle de contrat de partage de production d'hydrocarbures maanaam ci wolof ni ma la ko mën a waxee mooy bay séddoo bay séddoo ñoom ñooy ñëw ak seen alal jeex bu ñu jeexee exploité suñu exploité génne li nga xamante ni ñoom moom lañ ci financé ci x année bu dee vingt ans bu dee vingt cinq ans bu dee trente ans ñu ne lii da koy fay ci vingt cinq ans da ñu koy fay ci trente ans li nga xam moom moo fi des nag ñu dog koo séddoo mais bala ñuy def dara li nga xam ne ñoom moom lañ ci investir ñoom dañuy garantir ni ñoom loolu dañ koy génneel ci seen cëggal guy ba pare li nga xam ne nag moom moo fa des nag ñu doog a tàmbali nag taxaw nag pour séddoo ko effectivement li nga xamante ni moom mooy code bi nga xamante ni moom la ñu signé c'est le code de quatre-vingt-dix-huit bi nga xamante ni tey jii Sénégal dix pour cent la ci am ñoom ñu am ci quatre vingt pour cent da nga koy xool ci blogu bi nga xamante ni moom moo nekk suñu diggante ak Mauritanie actionnaire majoritaire yi BP ak Cosmos la fii tamit euh, actionnaire majoritaire yi du Sénégal parce que Sénégal aussi dix pour cent la ci am ginnaaw bi nga xamante ni génn nañu li nga xamante ni moom lañ ci def comme investissement moo tax aussi il va falloir nit ñi am un œil directeur parce que investisseurs yi bu ñu ñëwee li ñu mën rek mooy gonfler seen coût d'investissement ci li nga xamante ni moom la ñu def ci recherche yi parce que exemple tey mën nañ ñëw bu ñu amul un directeur amuñu xool ci li nga xam moom la ñuy def fu ñuy def cinq mille milliards bu la neexee def nañ ci huit mille milliards wala dix mille moo tax aussi gëstu bi ak xool bi tamit da ciy baax mais comme ñun yoruñu baat bi nga xam moom moo am caq li ñu man rek mooy joxe sunu avis ci li nga xamante Samba mhm. su dee tey par exemple tey euh, entreprise bi dafa ñëw mhm. def ex li ñuy wax euh, euh, exploration mhm. mais bu def exploration xam nga mhm. tey nit ki mën nga ñëw nga ne ko léegi da ngay mën nañu signé peut être contrat ngeen nga def exploration boo demee ba def exploration ba gis ba pare ñu doog a def contrat boo xamante ni dafa doog a jëm nag ci euh, ci exploitation. Mhm. waa léegi léegi lan moo tax ñu bëgg a boole euh, ñaar yooyu. waaw loolu laa la wax xam nga processus la pétrole processus la da ngay dem jeex investisseur moom mooy jël ay milliards am ay dizaine de milliards am ñëw pour jeex bu fekkee dafa gis. danaan la recherche na moom la ñuy exploration gis naa damay exploité maanaam loolu yëpp nag dafa am lu ko tënk lu ko tënk mooy ca début contrat ba lettre de présentation moom mooy wax ni société bii am na capacité financière am na capacité technique jaar na fii jaar na fee kon doy nañu pour ñu jox ko sunu bloc mu def recherche bu waree exploité mu exploiter mais lii nga xam ni yow investisseur moom nga ci def jàppal ni contrat modèle de contrat bi ñu signé ak yow mooy que ni bu ñu egsee ci séddoo jàppal ni moom mooy modèle de contrat de partage d'hydrocarbures jeexal nag boo gisee baax na boo gisul yow yaa te it lépp loo jeex. ci quarante huit heures je ne sais pas soixante douze heures si je am na nombre de jour yoo xam ne moom lañ ko jox lépp loo xam ne daf koo dajeek moom ci biir géej muy wàll wu mënti nekk au mètre dix mètres vingt mètres mètres un kilomètre ba quatre kilomètres de profondeur lépp loo gis da nga koy joxe moom la ñuy jël yóbbu ko échantion bàyyi ko direction ba euh, li nga xam ne moom moo nekk Petrosen ci banque de données leneen li nga xamante ne tamit moom moo ci nekk contrat moom. bu fekkee ne exploitation la exploitation la kooku mooy bay séddoo. bu fekkee ne nag c'est un contrat de concession. contrat de concession ñi contrat yi fi dégg yëpp c'est des contrats de concession bu fekkee ni tey. Samba Diop lan lan mooy contrat lan mooy contrat de concession. contrat de concession mooy lii ci sunu réew la nekk dañ la ko jox pour nga def service bii. léegi nag ci cahier de charge bi da ngay appliquer lii ak lii ak lii ak lii soo appliquer wu loolu nga xam ne moom la ñuy def ci kay de charge bi ci bien muy maanaam or di euh, même autoroute à péage bi kon ci sunu suuf la nekk maanaam lépp lu nekk ci suufu Sénégal rek ñu jox la ko pour nga liggéey ko en matière de service jàppal ni contrat de concession la te bépp contrat de concession am na ay clause de révision mën nañ ko xoolaat administrativement financièrement politiquement commercialement euh, commercialement ainsi de suite kon jàpp nañ ni bépp contrat de concession mu am na abi clause de révision yoo xam ne mën nañ koo joñanti xoolaat langa nga xamante ni moom mooy intérêt askan wi li nga xam ne tamit du intérêt askan bi Euh, Samba Tall euh, Sarr yow la ñu invité tey ci euh, émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM yow ngay expert minier gaz gazier léegi sàmba mhm. tey ni nga xam ne tey moom la gouvernement Macky Sall yore lépp lu jëm ci wàllum pétrole ak wàllum gaz ci Sénégal. ak mhm. contrat yi si dox diggante Sénégal ak yeneen entreprise ak 10 pour yi Sénégal di am. Mhm. ndax yow jàpp nga ne yorin wi baax na est-ce jàpp nga ne yorin wi leer na ndax tamit amul ay leesuxul maanaam luñ ciy nëbb lu ci am. waaw xam nga ñun dañuy nekk ñoo xamante ni nous avons droit au chapitre bu ñuy wax ak sunu askan ñu nekk expert ci mbir muy benn ñaar ñu nekk délégué national war a wax pour sunu parti nga xamante ni lii moo ci sunu vision loolu dafay neex bu ñu poser question bu mel nii jàpp nañu ni Macky président de la République avant muy accéder. kii station bi nga xam te moom lañ ko jox nekkoon na Petrosen moom laa wax sànq donc moom maîtriser na la cartographie minière pétrolière et gazière du Sénégal kon xam na lépp moom parce que nekkoon na banque de données ba xam na lan moo nekk ci sunu géej ak lan moo nekk sunu suuf en tant que géologue kooku mooy benn ñaar li ma wax léegi ñun téyewuñu nekkuñu dans l' administration centrale maanaam liggéey luñu état bu dee ñun ñu liggéeyul état ñun ñoo dem ba xam ni potentiellement maintenant le Sénégal a des milliards de mètres cubes de gaz bu nekk ñu mën a wax ni tey par exemple suñu digganteeg Mauritanie lii nga xamante ni def nañ ko prouver ko c'est plus de cinq cent soixante milliards de mètres cubes de gaz boo ñëwee Teranga boole ko yaakaar foofu la nga fa am am na six cent milliards de mètres cubes de gaz ëpp laay wax ba tey kon cela veut dire que ni potentiel bi sax da koy yokk da koy ëpp parce que ay euh, fan am na fan deux am na SN am na SN am na loolu yëpp ay bloc la buñ ci naroon dugg tey jii mën naa laa wax ba wax la bi fooree ba ay trois kilomètres cinq cent ci biir géej bu ñu foore ba quatre kilomètres ci biir géej gis nañu lii gis nañu la donc tey jàpp nañ ni bassin sédimentaire bu Sénégal pétrole kese la gaz kese la te ni mu ko amee ci géej gi noonu lañ ko amee tey ci jéeri ji kon jàpp nañu du moment où xam nañu kon ni Sénégal léegi nekkatul réew moo xam dañuy làmbatu ba xam am na pétrole wala amul gaz kon code attractif boobu nga xamante ni moom lañ doon wax ni investisseurs yi nañu ñëw ñu xool ba xam cela veut dire que ni kon bu ñu joxewaat suñu pétrole ak suñu gaz ñun dañoo war a aj suñuy mbagg aj suñuy mbagg mooy ñu gëm ni Sénégal maintenant est potentiellement riche. c'est xam nga nag Samba bu dee tey par exemple Sénégal am na pétrole am na gaz kese tey liñ si war a jëriñoo jërlawuñ yow sànq wax nga code bi ba pare mais code boobu noonu yow code bi ni ko tëggee liir nga ko est-ce que jàpp nga ne c'est avantage pour Sénégal. mais loolu laa la wax dama doon développé eggale gu ma dama ne la tey bi ñu prouvé rek ni Sénégal nekk na pays pétrolier et pays gazier dañoo war a changé waat code bi nga xamante liñ ciy am day ëpp fukki junni yoon dix pour cent. mais lu mën a nekk la. parce que li nga xamante ni moom moo fi des ñu war koo joxe joxe wuñu ko kon bu fekkee joxe guñu ko war nañu mën a tëggaat boo xamante ne keneen ku ñu koy jox Sénégal da ciy gis boppam numéro un. d'accord léegi léegi sànq euh, sa biir wax nee nga ki nga xam ne tey mooy def exploration maanaam jeex ba xam fii mhm. am na pétrole wala am na gaz moom mhm. su jeexee ba gis ne am na pétrole am na gaz moom day wax ne tant de milliards laa ci investir pour man koo seet ba gis ko léegi mhm. tant de milliards yooyu est-ce que dina am benn contrôle buy firndeel ne kii lii mu wax lu wér la waaw moo tax sànq ma la ñun ñi ñoom ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo yor état te état dafa yaatu mu am ay corps de contrôle am na ñoo xam ne ci wàllu finance la ñuy liggéey am ñoo xam ne wax na max président Macky Sall wax na ko barki démb jëm ñaajo am na ñoo xamante ni seen spécialité mooy forage kese am na ñoo xam ne seen spécialité mooy lii nga xamante ni moom mooy les coûts maanaam les les coûts d'investissement les négociateurs à côté les financiers à côté maanaam c'est tout un ensemble technicien nga xam ne dañuy jàng liggéey pour Sénégal nga xam ne Petrosen c'est uniquement pour nos hydrocarbures Petrosen dañ ko créé uniquement pour sunu li nga xamante wall wàllu hydrocarbure la kon bu fekkee ni amul technicien booy wër tey ci àdduna war koo mën a indi Petrosen pour l'intérêt du pays war na la mën a jaral nga jëli ko ba. Canada ba États-Unis ba France ak feneen parce que am na ñoo xam ne man xam naa leen ci des ingénieurs yoo xamante sont des ingénieurs calés en offshore yoo xamante ne tey ñu ngi biir Petrosen jàpp nañu ko ni lii nga xamante ni moom mooy coût d'investissement bi Sénégal war na cee teg bëtam ci sama njort bu rafet en tant que nit bu bëgg réewam laa yaakaar ni doo jël rek nit ni ko sa cëggal guye ngook demal en haute mer loo fa def boo ñu facturé ñu nangu ko. d'accord léegi euh, Samba Tall euh, Sarr euh, ñun pétrole ak rek la ñuy wax est-ce que mu yeneen ressources naturelles ay ay miin ak xeet yooyu. mais Sénégal potentiellement riche Sénégal nee naa am na or bi nekk fële tey moom nga xam moom moo nekk Kédougou am nga fa ñaari société benn bi Sabodala Gold Corporation la benn bi Mako Corporation la boo fa jógee Sénégal am na marbre. am na six variétés mais mais pétrole ak bi de bu naree mel ni oro Kédougou bee moom. jërul sax ñuy sax wàllum waaw foofu foofu laa la jëmal xam nga or bi daaw dèjà yow nee nañ la mu tuuti mu bari nee nañ la ful tolloo seize tonnes génn na fa fukki tonnes ak juróom benn génn na ci suuf Sénégal dem moom lañ fi exploité yóbbu ko fan dix pour cent nga ci am ah, jàppal ma jàppal jàppal ma loolu mhm. mooy code bi ma doon wax boobu dix pour cent nga ci am nga jóge fa Sénégal am na marbre bi nekk diggante Ibel Banda Fassi ak Dendifelo six variétés de marbre mu ngi ci réewum Sénégal ñoo exploité industriellement exploité guñu ko. d'accord muy kooku mooy kooku kooku kooku mooy ñaar ñett am na phosphate d'alumine bi nga xam moom moo nekk ndéndoor ñu yor ci ay millions de ton Sénégal am na zircon am na ilménite am na leucoxène am na rutile. tey jii Sénégal mais mais yi nga wax nii est-ce que ñoo ngi koy pour le moment nii comme ni ñuy exploité or bi. zircon bi ñu ngi koy exploité normal muy zircon ilménite leucoxène ak rutile moom moo nekk fële ca Diogo nga xamante ne tey ñun ñoo de troisième réserve du monde derrière l'Australie et l'Afrique du Sud. waaw tey jii réserve yi toll ci trois milliards deux cent millions de tonnes léegi Samba zircon bi ak or bi amulul njariñ Sénégal. naam ci réew mi la nekk pour le moment ni ñu koy utiliser. waaw xam nga lu tax mënuñoo am zircon bi nga wax ni wax li nga wax si moom la ñu am moom la ñu fi exploité ci ay tonnes euh, euh, or. Mhm. waxuma la euh, Ndakaaru mais. jëmmi fa or ba nekk askan wu fay dund ñoom ñoo gën a tumuranke maanaam ñun ñun sunu dund ak sunu nekkin mhm. ñu ne Sénégal mhm. dëkk la boo xam ne am na or wala am na zircon da nga ma may na nga rebondir foofu gis nga loolu nga wax léegi nii mhm. foofu nag laay sole casquette politicien bi foofu laay sole casquette porte parole bi foofu laay sole casquette délégué national aux ressources minérales bu parti awale ci loolu la ñu ne ñun li ñu gëm ba bind ci livre mooy de la concurrence à la concordance vers une transition démocratique pour une république une première république sénégalaise parce que dañoo jàpp ni république bi ñu yor c'est une république importée c'est une république qui ne nous ressemble pas qui ne nous ressemble pas parce que république bi nga xamante ne tey ñun moom la ñu soxla mooy république bi nga xamante ne tey dafa sauvegarder les intérêts vitaux de cette nation sénégalaise république bi ñu soxla tey jii mooy république bi nga xamante ni tey jàpp nañ ni potentiellement en argent yoru ñu liquide mais yor nañ yor liquide mooy li nga xamante tey dafa nekk suñu biir géej ak li nga xam moo nekk suñu biir suuf kon jàpp nañ ni tey bu fekkee ni lu ñu gëm nga xam ne moom mooy charte fondamentale suñu politique de développement mooy li nga xamante ni moom mooy tey jii le patriotisme économique patriotisme économique mënta weesu yow li nga am ci sa biir suuf ku mënti ñëw jóge bitim réew soo ko ci mënta ëppale pourcentage ngeen def contrat win-win loolu la ñuy wax contrat gagnant gagnant sama président nekk docteur def droit international négo négociateur international bind livre sur les APE accord de partenariat économique bind yeneen ak yeneen pour l'intérêt de l'Afrique moo tax ñu koy tuddee le brillant père fondateur de ah, l'afro-souverainisme xam nga ki nga xamante ni ki nga xamante ni mu ngi xool souveraineté Afrique waxaale wuñ ko ak souveraineté kon réew. waaw mais Samba Tall Sarr xam tey Samba moo tax ñuy proposé sénégalais yi. Samba Tall Sarr damay bañ sénégalais yi. dégg mhm. pétrole bi ak gaz bi. ndax mhm. tey dañ ne la euh, cin bu naree neex bu baxee xeeñ. Mhm. bu doon zircon bi jaareel nañ ko fi ko war a jaarale ba sénégalais yi gis ci seen bopp. ñu jaarale or bi fi ko war a jaarale ba sénégalais yi gis ci seen bopp. bu ëllëgee si biir bu ñu leen waxee na leen deux ma di gis seen bopp ci pétrole bi ak si gaz bi mën a gëm. waaw léegi li may développé foofu rek lenn la te ñun incha rek bi jàpp nañ ni bu ñu amoon bu ñu ñëwoon tey ji à la magistrature suprême loolu lu ñu war a mën a taxawal la lu ñu mën a dëggal la xam nga mooy lan dañu ni tey Sénégal potentiellement dafa riche potentiellement bu fekkee dafa riche ñun ñu yor lii nga xam ne yépp moom moo fi nekk président Macky Sall bi mu demee barki démb jam ñaajo waxaat na ko fa man dama naan sax am na loo xamante ne xam naa droit d'auteur war nañ ma ko mën a fay. sénégalais yi ci seen bopp tànk que nous ne pas suñu secteur privé bii ñu rendre leen fort woo sénégalais ak sénégalaise yi nekk ci bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi ñi nekk bitim réew picc nga ci kaw xel maa nga ci suuf lu ñu mënti am buroon seen sago dañuy ñibbisi seen suuf. mooy seen réew investir ci mais Samba Tall Sarr kon bu fekkee tey dañu yor potentiel bii yépp nga ma wax. waaw te ñun mënuñu cee gis ñun suñu bopp. cela veut dire kon doxalinu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk la mais xam nga moment bi may toog di wax ak yow nii tey doon na neex ñu ne senegal am na ay doomam ñu constitué en consortium ñu ngi ubbi usine or boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp ubbi ay comptoirs commerciaux fii ci biir réew mi bu doon cinq tonnes wala sept tonnes la ñuy génne par année cinq ans Sénégal romb na Dubaï même sénégalais yooyu ñu ni constitué wu nañu en consortium ñu ngay exploité marbre bi nekk Dindi Felo Sénégal yooyu constitué wu nañu tey jii lépp luy defar ciment mu ngi ci biir réew mi ñi ngay tabax cimenterie bu bees sénégalais yooyu tey constitué wu nañu ña ngay fexe ba lii nga xamante ni moom mooy phosphate ñu ngi defar engrais xoolal réew mu mel ni Sénégal léegi nga wax ko da ngaa wax léegi or wax zircon fàtte nga phosphate ak engrais seen Senchim fii la nekk mbaaw di defar engrais nekk filiale ci ICS tey ji ICS boobu yow Sénégal 15 pour cent nga ci am Pierre yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana moom mi nga xamante ni tey moom moo créé woon société bii moo ko taxawaloon tey jii Sénégal moom moon ko à cent pour cent tey jii Sénégal quinze pour cent la ci am Indorama moo ko moom à soixante dix huit pour cent Yves ko jël ko à sept pour cent cela veut dire que ni les intérêts vitaux de cette station sénégalaise ne sont pas sauvegardés ci suñu gis-gis. d'accord loolu moo tax nag ñu jël suñu responsabilité engagé wu dugg ci langue politique gi pour bokk ci ñi nga xam ne ëllëg dañuy joxoñ askan wi fan la ñu war a mën a jaar pour yóbbu Sénégal bii nga xamante ni moom la ñuy yaakaar. xam nga Samba Tall euh, Sarr. Mhm. Euh, lu ñu mën di am ci pétrole ak gaz. ak mhm. zircon ak or. Mhm. ak marbre. Mm-hmm. tant loxo yaa ngi nekk ci loxol loxo yi ñoo xam ne mm-hmm. ñoo ngi def ak ndëngate ak mbir moo xamante ne dara leeru ci mm-hmm. seen intérêt yi bopp ñor leen Sénégal mën na see gis ban na see bañ a gis boppam ndax ñun ñoo ngi wax pétrole ak gaz mais sunu géej gii rek bu ñu ko sàmmoon mën naa ëpp solo wala ëpp njariñ pétrole wala mu ëpp njariñ or géej gi li nekk ci euh, ci biir géej gi Mhm. Euh, loolu laa bëggoon a wax ci euh, laa bëggoon a wax ci loolu ndax dégg naa sa code maanaam euh, ñoo ngi wax ne Sénégal pétrole deux mille vingt xaw ma dina suqaliku dina dina dina dina nangam dina nangam mais man dama jàpp ne bu ñu ko bëggee jaarale daal fii ñuy jaarale or bii ak marbre bii nga wax ak zircon bii nga wax nii maanaam noonu rek la ñuy demee ci petrole bii ak. mais mais sëñ bi sëñ bi xam nga yow loolu rek nga jot a wax mais yow am na loo xam ne da nga yow lépp loo xam ne tabax la muy wàllu fair fair xam nga dañ naan sept cent cinquante millions de tonnes fële ca fële euh, moom la ñu am ci biir réew mi nga xamante ne tey jii moom mooy ci biir réewum Sénégal mais ci sondage de précision yi dañ lay génneel ba wax la tonnage yi ci tonnage li nga xamante ni c'est firnde prouvé c'est six cent trente millions de tonnes de fer six cent trente millions yooyu am nga ci yow trois cent soixante dix millions yoo xam ni hématite la mooy minerai oxydé bii beneen bi deux cent cinquante millions de magnétique moom mooy minerai magnétique kon tey nan la may mën a toogee tey yor lu toll nii tey ci potentiel ci feer nga xamante ni yow tey adduna bi xoolal fer li mu mën a def ci adduna xoolal zircon li mu mën a def ci adduna xoolal or li mu mën a def ci àdduna xoolal pétrole gaz li mën a def ci adduna muy la pétrochimie kon bu fekkee ni tey yàlla dimbali nañ ñun ñu gëm suñu bopp dëggal suñu bopp gis nga euh, mon cher réew mi amul lu ñu mënalul seen bopp gis nga état bu taxaw ak ay doomam yi nekk biir réew ak ñi nekk bitim réew nga ni leen man état man may ñëw garantir samay doom seen investissement ku ci def lii ci pétrole bi ku def lii ci or bi ku def lii ci gaz bi ku def lii ci phosphate bi nangam ak nangam ku nekk xool ca la ngay investir mu constituer leen en consortium garantir leen gis nga exonération fiscale yi mu defal multinationaux yi mu ne defal naa ko sama doom quinze ans vingt ans vingt cinq ans jar na ko parce que après liggéey yooyu ay sénégalais ñoo koy def kaay leen ñu constituer en consortium man cinquante cinq teg ci taabal ji quarante cinq yi ci des yéen a koy génne jox ko man conseil d'administration bi laay jiite leneen li ci des sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo koy doxal kuñ ci defal exonération fiscale vingt ans nga jël sa alal investir ci réew mi tey jàpp nañ ni Sénégal am na loo xamante ni tey yi nekk na fi loo xamante ni mën na yóbbu Sénégal te du ñu def recours ci benn institution internationale dem di lebi xaalis. Ah, ñu ñuy dëgg loolu loolu mooy euh, réew mu normal noonu la war a doxee mais malheureusement léegi. Euh, mhm. euh, fan yi da dañoo gis ne président mac Sall dafa génne benn décret. Mhm. li nga xam ne moo jëm ci euh, code des marché publics procédures yi. Mhm. Euh, ñëpp yamoon si léegi dañoo wax ne ñi nga xam ne tey yéen ay Petrosen ak SAR ak Senelec yéen teggil nañ leen procédures yi nga xam ne. moom la mhm. code des marchés publics daal di teg ñenn ñi jàpp ne. loolu ak ñàkk leeraange foofu la commencé ak ndëngate euh, ci ay kër yoo xam ne bëgg nañoo may wala bëgg nañoo may ay ay ay ay producteurs euh, privés wala ay investisseurs euh, privés wala ay fournisseurs ndax nee nañ leen yéen maanaam wàllum appel d'offre comme ni ñu ko doon defee teggil nañ leen ko yow loolu lan moo ci sa gis-gis. sunu gis-gis daf ci clair mooy que ni man sama yaram dafa simmeeku sama yaram dafa daw je suis triste pour mon pays lu tax ma ni la je suis triste pour mon pays. parce que am réew moom dama yaakaar ni transparence da ci am solo am réew yàlla nañu yàlla mu sal ci ger moo tax daaw bi ñu notee ni indice de la corruption mu ngi toll cent dix huit milliards de nos francs CFA loolu bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ciy dund ñun lii am na fi rek cela veut dire que ni gàcce la kooku mooy benn nan nga mën a comprendre réew mu mel ni Sénégal président de la République génne décret mooy deux mille vingt quatre bi ngay wax quinze trente huit bi mu signé le douze août deux mille vingt quatre mu modifier décret euh, deux mille quatorze vingt euh, douze douze bi nga xamante ni mu ngi ko signé le douze septembre man su ma gisee nga lu mel ni Sénélec lu mel ni SAR muy société africaine de raffinage lu mel ni euh, li nga xamante ni moom mooy waaw Sénélec génne lii nga xamante ni moom mooy Petrosen Holding Petrosen Exploration et Développement Petroning Petrosen euh, Training et Service SA génne réseau gazier génne institut national du pétrole du gaz maanaam ñi nga xamante ni dañuy yëngu ay sociétés yi ma lim nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu mbirum pétrole ak gaz jën njënd njaay achat lépp lu mënti nekk nga ne leen yéen dañ leen di génne yéen ci code des marché publics maanaam yéen kenn du saytu seen mbirum jënd ak seen mbirum njaay ak seeni nangam ak i nangam loolu xam nga mooy lan. loolu mooy léegi yow permettre nañ la léegi nga def entente directe entente directe mooy gré à gré gré boo ko déggee mooy bonjour les dégâts mooy non transparence dugg na corruption dugg na foofu la ñu toll tey ci réew moo xamante ni ñu ngi naan dañuy bëgg a tàmbale exploiter pétrole ak gaz salaamaaleykum waxaguñ la maaleykum salaam yaa ngi tàmbale yow di nëxal xelu nit ñi ci lii nga xamante ni foofu la ñu jëm bu ñuy wax ñu naan dañuy def allègement allègement mën nga koo def sans pour autant nga dindi nit ki pour mu am contrôle boo xam ne dañ koy def ci moom cela veut dire que ni société yi ma la limal ñii yëpp tey jii lépp lu ñuy def tey ci seen biir mën nañ ko defante ci seen biir xool nit bi leen neex ñu jox ko sans pour autant rendre compte li nga xamante ni moom mooy marché code de marché publics te damaa yaakaar ni loolu non transparence la damaa jàpp ni loolu corruption loolu mooy sax nag gën a xiir nit ñi pour ñu def corruption mais même ñoom nee nañu dañuy bañ euh, rupture euh, rupture am ci euh, ci stock beeg ñoom li ñuy li ñuy jëfandikoo loolu moo tax ñu def ñu dindi leen ci ñu ñu defal leen ñu din teggi leen procédure bi ñu waroon a jaar. rupture moom bu dee rupture ci mbàllum hydrocarbure SAR moom moo fi nekk di commandé di jënd di indi lu wàllu Petrosen Petrosen jëndul lenn loo xamante ne wàllu njëndante ak njaay la dafa amay ay compagnie yu fi nekk. dafa lim ay société société yooyu ñu lim si des sociétés yoo xam ne dañoo nekk ci biir réew mi kon société yi tey bu ñu génnee tey jii indil leen lii nga xamante ni moom mooy bu leen neexee def entente directe cela veut dire que ni mooy loolu mooy encore encourager corruption te loolu kenn du ko rafetlu ci bépp sénégalais laa wax boo xamante li la soxal kese mooy sa réew kese kott rek dong mënoo rafetlu li nga xamante ni tey moom la ñu teg. d'accord mais mais yéen waa Awalé yéen docteur Abdourahmane Diouf. waaw xam nga mbir mi mu ngi doog am su ma juumulee semaine bi jàll. Euh, président nekk ko fii woon mu ngi doog a ñëw hier je pense si je m'abuse j'ai pas cette information am na loo xamante ni ñun dañ ciy communiquer après mais yow ci sa bopp man en tant que tey délégué national nga xam moom moo yor wàllu hydro euh, ressource minérale nga laaj ma ci dama ciy joxe sama xalaat xalaat bii ma ci joxe it jàpp naa ne à quatre-vingt-dix-neuf parce que responsabilité moo tax ñu jox ma lu mel nii loolu jàpp nañ ni tamit nous avons notre mot à dire te loolu même boo ma ko laajulee yaa nga ciy dégg Abdourahmane di ci aytu di ci di ci wax son point de vue par rapport à une transparence mooy non transparence lépp loo xam ne réew yi dañ koy def ci kaw corruption corruption moom dafay yóbbu réew ginnaaw te parce que tey jii yow yëgoo tinoo mais bu ñu nee la tu es parmi les vingt cinq pays les plus pauvres les plus endettés les plus corrompus du la neex yow en tant que sénégalais. d' accord léegi uh, Samba Tall Sarr yow nga nekk uh, sa xam-xam màcc jëm ci wàllum mine wàllum pétrole wàllum gaz ak wàllum pont wàllum taleek euh, xew di demee noonu ngay technicien ci wàllu woo léegi nag euh, ci lu gàtt yow technicien nga saxel màcc na jëm ci wàllum pont ak wàllum tali infrastructure yi ñuy defar nii lan moo ci sa gis-gis. sama gis-gis mooy c' est très coûteux waxuma la c' est coûteux de c' est très Euh, def ma publicité nag def ma publicité liggéeyuma ci mais sama xalaat la en tant que des sénégalais nekk ci réew mi mënuñoo toog ci réew Sénégal moo xamante ni carrière yaa ngi fii mine yaa ngi fii li ñuy defaree tali yëpp mu ngi ci biir Sénégal li ñuy defaree tali yëpp laa wax mu ngi ci biir Sénégal ba mu def lien hydraulique lien hydrocarbure bi ñu xoolee tali ñaar rek la chaussée souple chaussée rigide tey boo xoolee l'emprise l'assiette la plateforme et la forme d'une route coupe longitudinale mooy couche de base couche de fondation sous couche revêtement li ciy dem yépp ci tali mu ngi ci biir réew mii ba mu des lien hydraulique muy gudron te loolu incha allah rabbi bu ñu tàmbalee exploiter sunu pétrole pétrochimie bi ma la doon wax sànq gudron foofu lay génnee kon cela veut dire que ni tey bu ñu demee ñun ba ñuy facturer dama lay wax rek peut-être am na information ñoo xam ne xamuñu ko gis nga li ko daggee woon Malick Sy mooy pompier fi ñuy wax pompier. ba fii nga xamante ni moom mooy rond par Padois baarataal bi moom moo ko defar mu ngi ko facturé woon état bu Sénégal un milliard deux cent millions de francs CFA un milliard deux cent millions par kilomètre li ko daggee foofu buntu Pikine société bu ñuy wax MSF la mu ngi ko facturé woon un milliard cinq cent millions par kilomètre gis nga bi ñuy ñëwee ba buntu pikin jëm jam ñaajo foofu la musiba bi tàmbalee ak Eiffage ñu ñëw di ñu facturer six milliards benn kilomètre six milliards benn kilomètre tey fi may toog di wax ak yow nii yi ñuy defar à partir de Diamniadio jëm Mbour jëm Thiès yëpp presque mu ngi ñu dikk quatre milliards. par kilomètre quatre milliards par kilomètre. autoroute bi. autoroute yi dafa cher par rapport par rapport boo ko doon méngalee ak yeneen réew yi un kilomètre bi c'est comme de milliards. foofu laa jëm dama lay dama lay ñëwal benn par benn dama lay jox mbiru Sénégal ba pare booy xool tey le projet Ila Touba c'est un projet de quatre cent seize milliards nga ñëw jël jox ko BRCB ñoo xamante ni c'est des chinois ñu dem Isimbank leb xaalis ñëw nga defaree leen ko cinq ans à un taux de deux pour cent lañ ko lebe xam nga foofu benn kilomètre Ila Touba ñaata la ñu ñaata la coûté état bu Sénégal trois milliards sept cent quatorze millions trois milliards sept cent quatorze millions la ñu benn kilomètre coûté xam nga ñaata at la ko état Sénégal di fay. Mhm. même bu Macky Sall président de la République demee war nañ koo fay pendant vingt cinq ans vingt cinq ans ñaar fukki at ak juróom cela veut dire que ni ñun tali bi ñuy defar ñun mun jaar ci joor gi nga fàq ay ngeer ak i kàdd la yow ñu facturer ko plus de trois milliards et quelque boo demee Tunisie nga dem Maroc nga dem Algérie maanaam ci montagne yooyu nga xam da ngay def ay tir pré découpage yenn yi da nga xam da ngay da nga pir tir pré xam ne da ngay def ay tir de mine jaare la tali bi ci biir montagne bi ainsi de suite foofu tali boobu sax mënu la coûter deux milliards et léegi lu waral lu waral lu waral loolu nag Samba Tall Sarr. mais foofu laa la jëmal ana CSA CSA bu Aliou Sow sous région bi Nigéria. Euh, Burkina Faso Sierra woon foofu yépp ñoom ñooy defar tali yi tey jii boo jëloon en consortium rek exemple bu ndaw laa lay jox gis nga tey jii muy CSE di Areski di ñi nga xam moom la ñuy wax Jean Lefebvre Jean Lefebvre tubaab yee ko moomoon léegi baarataal moom moo ko jël léegi groupe Talix la tudd groupe Talix boobu tey nga jël boole ko tey ci ci biir am na yeneen entreprise yoo xamante ne tey ñu ngi fi nga jël leen ñoom ñëpp regrouper leen tey ji loo bëgg ci tali ci biir réew mi mën nañ la koo defar kon léegi nan nga mën a comprendre yow bu dee latérite mu ngi ci réew mi bu dee ciment mu ngi ci réew mi bu dee basalte mu ngi ci réew mi bu dee technicien en point chaussée ñu ci réew mi ingénieur point chaussée yi ñu ngi fi ingénieur génie civil yi ñu ngi fi techniciens yi ñu ngi fi lépp am nga ko yow léegi lan moo tax ñun ñu wëg a wëlbatiku société yooyu nga xam ne dañ lay facturer loolu ci ay kilomètres tey sa même matière première boobu la ñuy jël yow pour defale ko sa tali la côtière bii nga tàmbalee dégg temps yi ñi nga xam a jóge léegi nii nga benn kilomètre bi presque ñaata la lay dikk benn kilomètre mu ngi lay dikk presque deux milliards six cent et quelque deux milliards six cent et quelque te wax la benn affaire ma wax la benn affaire c'est pas gratuit parce que péage la te ñëpp dañoo yaakaaroon ne autoroute boobu du nekk péage mais malheureusement mhm. bi ne la ñuy def tey ni wéy wéy rafet na baax na mais à quel coût à quel coût et c'est dommage c'est regrettable jërëjëf euh, Samba Tall Sarr euh, ñu daal di nag euh, wax ci li nga xam ne tey moom mooy élection au conseil des collectivités territoriales suba ci dimanche ji la ñu bari ci opposition bi dañ ko boycotté ndax dañoo jàpp ne institution la boo xam ne milliar yi ñu say dugal bëri na beneen bi institution la boo xam ne amul njariñ loolu la ko ñenn ñi gisee waaye ñi bokk ci nguur gi ñoom jàpp nañu ne Euh, pour ñu pour ñu am benn réussit ci politique bi jëm ci gox-goxaan yi munta ñàkk institution bu mel ni HCCT yow lu sa gis-gis. sama gis-gis li ci gën a bëri rek mooy sa caser une clientèle politique il faut avoir le courage de le dire c'est pour caser une clientèle politique yow tu ne peux avoir lu mel ni benn assemblée nationale am li nga xamante ni moom mooy gouverneur am ay préfet préfet nga wàcc ci suuf am ay commune communes yi ay maire di ko jiite ñu xam organique mbir administration nu muy doxee nga wëlbatiku naan da ngay créer yëpp c'est créer rek des des une clientèle politique c'est la même chose bu fekkee ni ñun dañoo jàpp ni réew mu ndóol lañu dañoo bëgg dem suñu kanam am na lu bare bare bare bare bare loo xam ne dañ koo war a weesu dafay mel rek démb rek maa ngi coxtaan sama benn xarit munum mais booy soxna ambassadeur ba tey ñu ngi leen di fay ma ne ko waaw waaw ñu ngi leen di fay de wala rek bépp soxna ambassadeur ci biir réew mi am nga yow salaire u téeméeri junni cinq cent mille francs cela veut dire que ni tey toll nañu foo xamante ni ñëpp ñi nga xam ne dañoo dugg ci langue politique dara soxalu leen lenn rek la mooy am ay post responsabilité yoo xamante ni même bu amul njariñ nañ leen fa teg ñu jàpp alalu askan wi li nga xamante ni ni moom moo leen soxal di ko utiliser en mauvaise naissance kon jàpp nañ ni lii nga xamante ni moom mooy euh, budget budget port yi nga xamante ni moom la ñu yóbbu ci institution yi bu fekkee dañu ni dañu bëgg a jojanti redresser Sénégal ak fi Sénégal toll nee nañ Sénégal way way situation bi dafa graaw Covid bi nangam ak nangam barki démb yaa ngi dégg ñun le deux cent et quelques entreprises tëj na ci biir réew mi ñoom xam nañu loolu ñoom mm, dama lay wax rek réew buy dox dafa am noo koy natte na nga koy natte xam nga mooy lan président de la république monsieur Macky en dix ans jox nañ ko un budget de trente huit mille milliards trois cent neuf virgule deux ni ko doxalal réew maa ngi noonu kooku ni ko sa cëggal guy la boo doxalee yow la boo doxalul yow la amul problème 2012 plus précisément le 3 avril réewum Sénégal borom mu ngi toll woon ci 2741 milliards fi ma toog di wax ak yow nii weesu nañu 14000 milliards d'endettement cela veut dire que ni tey borub Sénégal c'est le triple du budget du Sénégal kooku mooy benn beneen bi muy yow di man ak keneen ak keneen réew mi ñëpp bëgg a liggéey mais dama ne la avril taux chômage bi mu ngi toll woon ci dix point quatre fi may toog di wax ak yow nii dernier trimestre deux mille vingt et Sénégal mu ngi toll ci vingt quatre point un cela dire que ni bit chômage du Sénégal fa mu toll woon en deux mille douze daf ko doublé waat cela veut dire que ni tey Sénégal ñun li ñu jàpp ñun au nom de notre parti dañu jàpp ni Sénégal dafa am nu mu doxee en tant que jàng. ci li nga xamante ni wàllu luy yóbbu réew ci wàllu économie ci kanam. d'accord dafa am mhm. dafa damay eggale foofu rek dafa am ñetti pàcc ci wàllu ni ñuy natteem réew mu ngi dox la doxul muy le secteur primaire <clears throat> le secteur secondaire le secteur tertiaire maanaam tey primaire bi mooy mbay mi càmm gi napp gi élevage bi nañu leb lu baree bari mais nañ ko investir foofu mu booster croissance su Sénégal tirer croissance bi mais malheureusement. mais est-ce que lay lebal moo lay fi nga koy investir. mais foofu laa la loolu moo tax ma ne la yow nag nan nga mën a yore léegi yow ressource boo xamante pays industrialisé yi nekk ci bitim réew yépp yow sa matière première la ñu soxla pour industrialiser ko ñu ni c'est des pays industrialisés nga nekk fi yow di wut ay dix pour cent ki cinq pour cent ki dama ne ñun nous ne yi assurance yi multinationaux yi nga xam ne dañ leen defal exonération fiscale ñu ñëw investir ci réew mi ñooñu ñooy tirer la croissance du Sénégal à loolu moo tax ñu ni Sénégal am na croissance mais cette croissance elle est extravertie croissance boobu bitim réew lañ koy lekkee waa Sénégal dundewuñu ko xam nga yow lu mel ni bu ma caameen yi jàpp nag xoolal lu mel nii Elinkine ca Casamance ba Ndar sept cent quelque kilomètres yow da ngay dem ba jën boo lekk yow jën jën benn jën booy jël di ko lekk yow daf lay poser problème cela veut dire que ni ñun téeluñu dara suñu réew géej gaangoog c'est du mbambula mine yaa ngi nokk c'est du mbambula pétrole bi gaz bi cela veut dire que ni tey ñun dañoo war a taxaw def une lecture froide par rapport à la situation géographique géopolitique géophysique géostratégique et géologique pour pouvoir amani ce beau bateau qui se nomme le Sénégal dans des lendemains meilleurs jamono jooju nga xam ne nag ñoo ngi euh, taxawalaat au conseil des collectivités territoriales une minute rek si njëgu yokk yi mhm. lu ko waral nee nañ guerre guerre bi la waaw xam nga gàcce dafa may dafa may daf may rey des fois ci réew mu mel ni Sénégal président de la république am li mu am yépp ci réew mi nekk président union africaine dem ba ca Poutine te defe naa ni ba mu demee ci Poutine aussi liñ ci dégg lenn la mooy céréale ak engrais wax naa ko sànq sama jur benn wax Sénégal muy réew moo xam ne am na ay millions de tonne de phosphate Senchim gii doon defar engrais baykat yi di ci jot ñeneen di ci jot nga xam ne jaruñu ko yóbbu bitim réew ñun xaye di nañu ba nga xamante ni fi ne nii phosphate boobu moom la ñuy jël yóbbu bitim réew defar engrais foofu indi laatal ñu ko ñun diñ ci bëgg a rey béykat yi xam nañ li may wax nit ñi xam xam nañu li may wax kooku mooy benn ñaar yow nga yor suuf nga xool Saint-Louis ba Bakel am nga deux cent quarante mille hectares yoo xam ne war nañ ko mën a béy Saint-Louis ba Bakel jàpp nañ ne ndox mu neex la ndox mu neex moom boo demee Saint-Louis yow boo xamee ndar ci bël ba mooy fi ndox mu neex mi di daanoo ci océan Atlantique bi Sénégal mu ngi ciy perte six cent quarante mètres cubes à la seconde. loolu mooy kon tant que bayuñ ñuy dundee njëg yi mënut ñàkk a xam nga daf may damay gérer euh, j'ai froid au dos ndeysaan damay damay sama yaram day daw bu may dégg sax naan ay ay sécurité alimentaire sécurité alimentaire moom mooy gaawantu nga lekk bala ngaa dee ñun souveraineté alimentaire bu ñu ko amulee ci ñun la. maanaam ñun am nañu ay ndaw am nañu suuf am nañu jant am nañu ndox mu neex am nañu ay ndaw yu jàng ba am ingénieur ci mbiru mbay kon tey bu ñu atteindre sunu souveraineté alimentaire cela veut dire que ni suñu politique moo lompañ nan nga mën a comprendre tey yow lu mel ni vingt milliards laa lay wax vingt milliards de mètres cubes te li ma lay wax c'est des chiffres de l'organisation mondiale pour la mise en valeur du fleuve Sénégal vingt milliards de mètres cubes dinañ ko xoole ci ndox mu neex muy jóge ci fleuve Sénégal di daanu ci océan Atlantique bi yow nga bàyyi fa ndox moomu ñëw fii ci Ndakaaru ni yow da ngay def usine dessalement pour génn ndoxu xorom ni nga xamante ni moom moo nekk ci géej euh, xorom si nga xam moom moo nekk ci ndoxu dama yaakaar ni priorité dafa am tant que nous ne parvenons pas tant que nous ne parvenons bay suñu bopp transformer ko sur place ambaleel ko sunu bopp li nga xamante ni dafa war dem ci carton dem ci carton état bi leen rek la ci am xam nga mooy lan homologation des prix ñun lu ñu amul ci sunu suuf ñun la bu gàcce la bu ñu toogee fii ba gis ay camions yu jóge lu mel ni Maroc di indi fii li nga xamante ni moom mooy carotte di indi fii li nga xam moom mooy soble di indi fii li nga xam moom mooy pomme damay yaakaar ne kon ñun fa ñu war a jaar dañoo tegg yoon wax léegi euh, Samba Tall Sarr euh, xam naa ne ba muy tulee euh, assemblée nationale ñu si bañ a wax wala ci lu gàtt rek ci Macky président Macky Sall mi ñuy njort ne dafa bëgg troisième candidature ak nomination Mamadou Badio Camara njiitul conseil constitutionnel lu ci sa gis-gis sama gis-gis moom mooy la balle est dans le camp des Sénégalais xam nga man dafa am rek may gisee Macky Sall président de la République gardien de la Constitution chef suprême des armées et de la magistrature clé de voûte de toutes les institutions c'est lui qui nomme les emplois civils et militaires loolu ay pouvoir am la ay ndombay tànkam la moom Macky Sall boobu président moom moo bindulu woo conseiller technique am conseiller juridique am du moins Ismaïla mu ànd ay nitam ni ko damaa bëgg nga ma lii kooku bindal ko loolu ñu jël ko yóbbu ko conseil constitutionnel conseil bi nga xamante ni jàpp nañ ni moom moo nekk ca kaw a kaw moom mooy xool euh, constitution Sénégal moom moo koy saytu moom moo koy aar moom mooy def lépp tey kooku ni nañu dem tey li nga xamante ni moom mooy référendum ñu dem référendum def li ñu war a def yépp mu féete côté tey jii président boobu tey jii moom moo wër àdduna wër fépp taxaw ni man maa bindulu ñu bindal ma man maa yóbbu dama yaakaar ni dafa am ñoo xamante ni jànguñu ulla lan moo tax ñuy alimenter débat bi pour couper débat bi dama bëgg mu yomb mooy man bu ñu ma falaatee am confiance jox ma li ma bindulu mooy deux mille dix neuf mooy deuxième sama dernier mandat àdduna yépp dégg li muy wax du arabe du anglais du espagnol Ismaïla Madior bi nga xam ni moom moo bind ni lii dafay viser directement le président Macky Sall c'est pas une question d'interprétation nul ne peut faire deux mandats consécutifs wax ko ñetti yoon defe naa vidéo yaa ngi daw ba ñëpp dégg Ismaïla Madior boobu tey jii ñu walbatiku Mimi Touré mii tey jii jaar fa mu war a jaar Seydou Gueye jaar foofu yum jaar fa ñu jaar ñoom ñëpp ñu nangu ni ñoom ñoo bindulu ñu bindal leen ñu yóbbu conseil constitutionnel ni mooy deux mille dix neuf deuxième et dernier mandat damay wax nag ni kilifa diine yi ñu ngi fi kilifa aada yi ñu ngi fi ñi nga xamante ni lambda sénégalais lañ ñu ngi fi dégg nañu lépp gis nañu lépp xam nañu lépp maintenant nag réew dafay toll foo xamante ni ku nekk yaay jël sa destin en main. sunu destin en main mooy ñoom lu mu leen jaral lu mu leen jaral pour. li nga xamante ni moom mooy toog fi ñun dinañ jaralu lu toll noonu pour jël leen fi parce que nag dañoo jàpp ni présidence de la république c'est la première institution du Sénégal maintenant où est la sacralité de la parole d'un chef d'État moom moo taxaw officiellement et solennellement ni 2019 te dama yaakaar ni ñaari 2019 amul 2019 bii mooy sama deuxième et dernier mandat débat bi kulóo na ba ku ci wax ci ñoom ku ci wax ci ñoom koo xamante ni c'est un dépassage par rapport ak ñoom li wax ñu jël la dàq la. d'accord kon dama yaakaar débat bi moom sénégalais yi ñoo koy régleel seen bopp keneen du leen ko régleel. waaw d'accord jërëjëf euh, Samba taal euh, saar ñu lay sant la gërëm. merci c'est moi qui vous remercie di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura tey fi nga xamante ni moom la ñu am tey muy Sénégal le Sénégal ne sa fera que ce qu'en feront les Sénégalais eux-mêmes. nous ne devons pas être étrangers à nos propres ressources tey jàpp nañ ni Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu yor moom la ñu móol nga xam ne moom moo ñu defal lép en revanche dañoo de revenir quelque chose à ce pays moom moo tax ñu bàyyi lépp dugg ci langue politique gi pour servir ce pays ce pays qui nous a tout donné et nous le Sénégal. puissent aller dans les lendemains meilleurs. jërëjëf euh, Samba Tall euh, Sarr mu nekk expert minier pétrolier gazier moom la ñu invité woon tey mu nekk technicien tamit ci lu jëm ci wàllum pont tali ak yoo xam ne aju na ci euh, wàllu woowu mu nekk homme politique ca commune bu Ngaye Ngaye nekk ci département bu Tivaouane. mu bokk ci parti politique bi di euh, Awalé moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm.